le campus social foofu y a pas de franchise universitaire amul c'est un acte réglementaire qui organise Euh, euh, disons euh, les, les les franchises universitaires soo ubbee texte bi doo gis fenn ñu bind ne le campus social est touché concerné par les franchises mais, universitaires mais mais c'est difficile aussi de dissocier quand même euh, campus universitaire campus social ak campus pédagogique. Euh, vous je vous donne raison là-dessus. mais xam nga tey moom mii mu dëkk campus social moom étudiant sama rakk la sama doom la mu dëkk campus social un problème très grave am mais policier dañuy dugg man sama kër policier dafay dugg donc campus social moom vraiment mooy kii lu mu wax rek tous les citoyens sont vraiment égaux devant la loi loolu y' pas de distinction les franchises universitaires c' est le campus pédagogique barki démb takk der ba ñuy dugg campus social kenn woowu ñoom ñoo duggal seen bopp. parce que xam nañu ne parce que euh, foofu commissaire ak ñoom ñëpp ce sont des maîtrisards en am am nañ des xam nañ lu nekk ci taxi donc xam nañ ne c' est leur devoir de rentrer dans le campus social parce que y' a un péril imminent. dans leur naka ngeen di def ak peut-être c'est-à-dire que naka ngeen di def ak étudiant bi nga xam ne dafa amee feebar nekk ci néegam ñu war a sànni ay grenades lacrymogènes ci biir campus social est-ce que dina neex tey ñu xaajale le campus social le campus pédagogique dama ne tout à l'heure sama doom la sama rakk la mhm. donc loolu moom mënuma ci dara parce am na ci ñoo xam ne aussi ñii lu ñuy grève grève ñoom grève uñu am na ci parce que ñun ñëpp def nañ université am na ñoo xam ne bokkuñu ci grève même ñoom takk der lu tax ñu dugg fa ñoom ñoo ko xam recteur demandé pour le campus social le recteur ne l'a pas demandé le directeur du CROUS ne l'a pas demandé pourtant takk der dañoo dugg pour le campus pédagogique c'est pas le recteur qui l'a demandé contrairement ak moom li nga xamante ne mën na ko xalaat assemblée de l'université ñoom ñoo réunir moi je suis membre de l'assemblée de l'université ñoom ñoo réunir ne situation bi fu mu toll de examen mi ngi waaj a am dañoo soxla takk der yi dans le campus pédagogique loolu yoonu recteur newu ci du sama xarit walaay liggéey rek ak dëgg rek moom nañ séq man ak moom du sama xarit foofu laa ko xamee mais foog ñu koy wax ba keroog ñuy xam lu muy wàññi maintenant moom mii il peut nous faire un reproche en tant que directeur du cours mooy le directeur du cours du wax ak man wax ak moom xam nga lu tax parce que à l'université le social suit la pédagogie assemblée de l'université nga xam ne moo ma tënk moom moo ma ne kii di Assane Ndour newatul le président de la coordination des étudiants assemblée de l'université moo ne dissoudre nañ coordination des étudiants c'est pas le recteur qui l'a dit mm-hmm. parce que le recteur en réalité ce n'est pas mon patron ce n'est pas mon patron c'est des établissements publics autonomes c'est l'assemblée de l'université qui a décidé que la coordination des étudiants est dissoute maintenant par rapport à la mort des étudiants sànq dafa am lu ma wax te bëgg naa moom mu sànni si ay cadeau mm-hmm. xam moom dafa bëgg ñoom étudiants ñu leeral enquête maanaam ñu jël en charge les intoxiqués alimentaires. Mm-hmm. mais nan nañ leen di jëlee en charge. ya des intoxiqués je ne suis pas d'accord sur le nom mais c'est pas grave loolu jaruñu ci werante. il parle de c'est pas grave loolu jaruñu ci werante. Euh, mais les intoxiqués ont été pris en charge ñu le service médical Assane soo feebaree mais da ngay ñëw. soo ñëwee c'est un médecin sept ans de médecine avec stage et tout c'est un personnel soignant moom xam na lu ma koy wax su doon par exemple da ngay ñëw ñu la garab amul. wala ñu ne la fii kat médecin amu fi wala ñu ne la y' a pas de personnel soignant là vous pouvez dire que les étudiants ne sont pas pris en charge mais dans la mesure des moyens dont nous disposons et dans la mesure des moyens dont dispose l'État tous les étudiants ont été pris en charge loolu moo tax mort d'homme amul maintenant pour revenir sur l'histoire de parce que je suis très content parce que il n'a pas dit que ne lekk bi moom moo ko rey mhm, Assane xamoo lu ma wax sànq euh, moom mi madame Ndiaye dama ko ne man ak sama ministre ñoo woo en en l'occurrence Cheikh Omar Anne moo woo son collègue ministre na ko wool procureur qui réquisitionne le corps c'est pas les parents parce que suñu bàyyi woon parents yi dañ koy denc mais ñun ñoo force ne non kenn du ko denc dañ koy réquisitionner dañuy def autopsie on a pris le corps yóbbu ko hôpital Dantec est-ce que xam nga ne Assane résultat yi ba mu génne kenn joxuma ko man on a donné ça a celui qui a réquisitionné le corps le corps en l'occurrence monsieur procureur de la République moom dañ jox résultat yi mm-hmm. et c'est le procureur am na loo xam ne am na te yow yëgoo ko mooy am na ñoo xamante ne ñi ngi crouche dans le CSA qui ont été auditionnés. ah am na ñu ñu ci déglu. ah ben oui absolument parce que parce que dans un pays de droit ñii wax naa la kii sama doom la mat naa ko bàyyi. sama mhm. sama doom la même s'il ne le veut pas. Mhm. tey war na am problème moom mu ñëw comme les autres le faisaient. Mhm. ma ñëw ma régler ko te kenn du ko yëg parce que suñu ay doom nañ. moi j'étais le directeur du. a am dialogue a am mais attention que après lépp nag. ce sont les textes qui organisent tout moi j'ai été le directeur du COUS de Thiès étudiants yi dama doon dama doon bañ j'ai fermé les restaurants pendant deux semaines mais quand il s'agit de dire la vérité il faut dire la vérité alors pour terminer là-dessus le certificat de genre de mort dafa conclure Assane loolu c'est mis à disposition on a fait on communiqué parce qu'on ne veut pas violer le service médical cette personne-là Badara Ndiaye est mort d'une yow Assane tout à l'heure maa ngi koy wax nee naa ko étudiant bi mësul lekkee ci restaurant bi te yow loolu xam nga ci dara gannaaw si ses amis ont dit wëy lekkul ci restaurant bi mais xëy na lekk na ci pain bi yow loolu dégg nga ñu koy wax su dee yaa ngi Bambey donc voilà moi je pense que effectivement les étudiants parce que moi j'ai été étudiant en fac de droit fii nii à l'université de Dakar et d'ailleurs il faut pas penser que vous vous êtes les plus mal lotis parce que man en première année j'ai eu mon à la fac de droit première l'université de Bambey c'est moins de huit mille étudiants donc foofu amul fenn foo xamante ne étudiants yi mat nañ fa. seen maintenant je termine je je termine sur une chose non c'est pour waaw c'est pour xam nga moom moom suñu weetoon nii nii. te tout à l'heure dinañ waxtaan dinaa ko jox les meilleurs conseils je le dis publiquement parce que je n'ai rien à cacher. Mm-hmm. je n'ai rien à cacher am na un truc très important bëggoon naa moom nga laaj ko ko. Mm-hmm. la plateforme de l'année dernière bi ngeen tegoon ci kaw table bi loolu lañ ci bindoon dafa manqué ndox. cinq forages nu Crous bënn au niveau de Bambey cinq. tey ndox amatul problème au niveau de au niveau de Bambey te loolu Assane ba léegi parfois da ngeen di fàtte le campus boobu ngeen nekk le campus 1 ce campus là il n'est pas fait pour 3000 étudiants loolu moo tax ndox amu fa. ce campus était véritablement fait pour cent trois cent étudiants actuellement soo fa demee c'est des milliers d'étudiants qui vivent là-bas dëgg la wala du donc c'est normal que mu manque ndox mais on a fait un forage il y a plus de problème d'eau le restaurant bu muy wax incriminé le restaurant Europe 2 il y a un forage qui a été fait là-bas à l'ISFA de Bambey y a un forage qui a fait la direction à Diourbel parce que nous avons un campus à bas dans la plateforme revendicative de l'année dernière te moom moo ko tegoon ci kaw table bi dañu waxoon amul ndox leneen li mooy hangar boobu ngay wax. nga daanelee foofu waaw. foofu laay daaneel le hangar il est en construction loolu yëg nga ko c'est-à-dire que l'État et nous sommes un démembrement de l'État nous gérons des urgences gis nga Sénégal su amee cent francs j'ai l'habitude de le dire ñu nekk cent personnes c'est cent francs divisé par cent chacun a droit à un franc. gis nga taalibe yi di nekk kër sëñ Mor Mbaye Cissé fee si Njaareem wala ñu nekk daara sëñ Mor Fall ñooñu dañoo bokk ci état bi te kenn joxe leen dara alors quand l' état fait des efforts pour les étudiants il est normal loolu ça fait c'est ça c'est vraiment le droit loolu day neex parfois ñu koy relever ñu ne ah, l'État a pris et fait des efforts à l'endroit des étudiants c'est clair monsieur Guèye ñu bàyyi la rek euh, ñu bàyyi la peut-être li li nga ci am comme réponse par rapport aux interpellations yi nga xam ne def na la ko waaw euh, pratiquement ñun dañ fi ñëw pour leeral ah. ndax mhm. moom aussi tamit euh, comme ni mu ko waxee mën nañu papa donc ñëwuñu fi sax pour ay kii yooyu noonu mais par rapport ak surtout la mort de notre camarade Euh, bañ ko yëgee ñun on a fait ce qu'il fallait faire parce que même bañ ko yëgee sax dañu xëy gis ci biir université bi euh, ci porte bi porte de l'université ay ay ay euh, force de l'ordre yi nga xam ne dañoo armé wu jusqu'aux dents pour préparer peut-être à une éventuelle euh, manifestation boo ñëwee aussi sànq rek benn professeur sax mi ngi ko doon wax naan euh, jàngalewul sax ba affaire bi amee ci suba si parce que dafa foogoon ne évidemment étudiants yi dañuy dañuy dañuy dem mouvement donc par rapport ak loolu li liñ ciy wax rek mooy bañ ko yegee aussi dañu dem euh, xool ba xam information yi est-ce que c'est vrai parce que bañ bañ koy bañ ñu koy wax dañ ñu ni peut-être dañ ñu ni carrément kii il est mort d'intoxication il faisait partie des victimes donc ñun bañ ko xamee ci suñu devoir lañ nekk ah suñu rôle bañ ko xamee dañoo dem euh, à l'infirmerie xool ba xam il était euh, parmi les étudiants yi nga xam ni fréquenté woon nañ pendant cette période parce que le 15 la woon le 15 novembre donc après le 15 novembre aussi le 18 mu jaar fa te le période boobu noonu bari woon na ay étudiants yu fa doon jaar yoo xam ni c'était des victimes le 18 la fa jaar évidemment on a pris même des photos ci registre bi xool xam ni carrément